yow li nga nekkee yaa ko def yàlla mag mu réew la non réew mu de dafa dof de. doful lool danaa dof noonu. jege sax kuy dof kon maam Saliou Mbacke yàlla na la yokk la rab te taaf la ci barke. amiin amiin amiin. 23 septembre 1966 lañ fi ñëw. amiin ay nu maan ay nu maadi Lamsaar ak Medinatul Munawwara. amiin te it Mouhamadou moo gën ñëpp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adam del ñiin del sunu maam Adama del ñu ngi mën la nga del kon maam Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk la rab te taaf la ci barke. Serigne Touba rek mooy Serigne Serigne. Mhm. mooy yaakaar yi di am ni. Serigne Cheikh Oumy Mbacké yàlla na fi yàgg te yow mooy xëyaam dina ñëw te gis la mhm. ajjuma ci la ñu liggéey àdduna ajjuma ci la àdduna di tukki ajjuma ci la ñu taxawal siraat siraat taxal mu siraat al lazina alamta alayhim xayril maxduubi alayhim wa lad-daalliin ñetti fànn yu bàmmeel ku ci mucc mm. mucc nga lu yàlla di wax ñu ubbee sa kàddu mm. mm-hmm. te doo am baay faal mm. te sa juróom yi julli waxtu normal doo aji texe ngay doon yàlla yàlla musal ci naari jaxla mu ne ara ay te lazi yu kasibu bi diini wa salika lazi dootul yetteeku wala yokkootu ala taxaabil miskin wa waylun lil musalli la léegi dootul ala taxaabil miskin ala taxaabil miskin wa waylun lil mu meew banque sëñ Tuubaa keesu buur kum doyul keesu jàkka du la doy jàkka yi rek la ñu mu buur yow mal xëy am dina ñëw ca bis la. yal nañ yàlla may mucc la. mu ne tabati yadda abiid la xam abuur wata ba maa ax ne. loxo moo kasaba. sa yës laa ne ren satan la moo ko laal waa am naa te waa amaalutu xatabi li ci di am bi ma sa jib. non gannaaw may delloo daara jënd fi mu toll nii. wala daara jënd. alxuraan bi dëpp ko war a jàng. te xam-xam daa war a mokk ci bopp. wallaahi mag sëñ Fallou nag en bonne conscience on se dit la vérité. surtout man ñetti quartier laa jàng. A B C. Ba Siid Mima muy Hadam Deel Mim Deel sunu maam Adama Deel ñu mimal la nga Deel kon Mouhamadou moo gën ñëpp Rasulullah sallallahu alayhi wa yóbbu Mouhamadou Bamba. Hmm. yóbbu Rasulullah gën di mu def. fi hmm. bàyyi kenn jigéen moo foo ndaya àdduna hmm. ndax Rasulullah jigéen moo ko meññ jigéen ñu ko dimbali financement moralement honnêtement dignement. kon sëñ Cheikh Oumy Mbacké yàlla na fi yàlla. allahumma amiin yaa rabbal aalamiin. jaayam <laughs> grand jaayam maam. xam naa la fi ne dofaloo kon da ngaa réew rek fi mu toll nii ngay def ñëpp ay feem la rek li nga fi wax ni kaamilu alxuraan nga tari bu kenn dul dindi. léegi boo jógee teg yu la neex gaa yi bëgg la def benn dof. mu ne yàlla nee na yonent bi nee na bëggul bisimilah. Hmm. boo rendee ganaar. da hmm. nga koo ëpp doole ci àdduna. waaye ganaar bi la ëpp doole téeméeri ci yàlla. te it nañu xalaataat ne ñu ngi ci axru samaan. Hmm. muy juróom-ñaari sooroor. juróom-ñaari sëñ Fall ñun ñooy juróom-ñaari xeetu doomu aadama yi mujj ci àdduna kon ñun ñoo koy bukkule kon àdduna ci biir lay tukkee kon ñu ci siraat siraat xal mu sa xima siraat lazina alam tala xëy na moom la baax te kenn du baax ba mel ne ba baa mm-hmm. baax kon ko tënk ba beneen yoon mm-hmm. ay nu maan lan saar médina tur mu la war kon maam Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk taaf ñu ci barkeel soow la léegi picc mi jaaykatu laalo laa ko tuddee lu mu am sànni ca bët ba ndax bët yaa ngi ne ne